asalaamualeykum asalaamualeykum uh, wa rahmatullah uh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences ah, dañu del siwaatoon rek ndax coow yu bari yu ñàkk solo yi nga xam ne lépp ci ak parparloo ak kompaloo ci la ko askan yu teg mu nar a jël suñu temps bépp nar a jël suñu bépp réew mi ni jaamoo yàlla bokkut ak ni ko nu sunu boroom sante naa naafeq gi ci biir bari na torop torop torop lii sëñ Moustapha wax ah, du lu rafet wax ji néexul ci ay nopp man de bu doon man bu doon dëgg du ko wax du ko wax waaye kenn ku ne ak na jàngale waaye li mu wax moom kenn ku ne xam na ne dérapage ngi ci ku dul juum ci wax amut waaye dëkk njuum te baaxut lislaam yi Sénégal moo tëdde noonu dama lii sëñ Moustapha wax kilifak diine kilifak diine gu mag wax na lu fi gën a ñaaw te amul kenn ku ñemee génn wax ci rajo yi wax jëm ca sëñ Moustapha euh, dafa am punch punch boobu mu am euh, du ñu baree koo am moom it buy wax war naa xoolaat te xam ne ña koy déglu ñëpp duñ ay soppe duñ ay soppe waaye wax ji man rafet lu wuma ko rafet lu wuma ko euh, islam nag au senegal dañ koo foye islaam dañ koo séddoo ay kër ñoo ko confisqué ba ñun jullit sax jotiwuñ ci ba li nga xam ne moo jaadu muy alquran ak sunna dama ne jotiwuñ ci dama ne lii sëñ Moustapha wax dama ne sëriñ boo ko waxoon ne ko sa baay lii sëñ Moustapha wax ci yont yàlla Suleymaan ak Daawud ku ko fi waxoon sa baay sa baay waxuma la mer waaye dëngëru kooku pour jéem koo éliminer pour toujours nun gëmunu yàlla ay sëriñ lañ gëm dama gëmunu yàlla xamunu yàlla ay sëriñ lañuy jaamu ba tax na réew mi lu la neex sañ ko wax mu jëm ci yonante bi lu la neex sañ ko jëm ci alxuraan lu la neex sañ ko jëmee ci alxuraan te xaddu dam waaye seen sëriñ si ngeen di jaamu koo ci sa ndiggal sëriñ sa ndiggal sëriñ képp bu la jékkoo jël sa bakkan ndax ay brainwash yu leen def fanatisme boo xam ne dafa dugg ci diine yi amut kenn koo xam ne ñeme ngaa ñaanal sa bopp dangay tàllal sa loxo kay diw ñaanal la réew moo xam ne lislaam ni mu fi dégradé woo dangay kersaw boo demee ci yeneen réew yi ba tax na war noonoo jóg seet fu nuy jaar ba dellu tuubaat tuubaat ñépp dir ci lislaam encore suñ Moustapha euh, xam-xamam yaatu na li ñu ko soxlaa dëgg dëgg dëgg ginnaaw diine ji euh, xale yaa ngi ciy góorlu xale yi luñ lekk lañ bëgg xale yi fuñ liggéey lañ bëgg xale yi am dara jox seen ndey lañ bëgg xale yi dañoo bëgg yéen ñii din rey ci diine ngeen góorgóorlu ba laboratoire di ngeen ñeme ko di ci dem dañoo bëgg dawal ci oto yu bees yi xale yi dañoo bëgg mëte yi nga xam ne moo génn xew ma ñoo koy liggéey di ko jaay te di ci jënd xale yi liñ bëgg ngeen jublu ci pétrole bii nga xam ne tubaab yaa ngi koy sàcc yi dem jën yi napp nañ ko ba géej gi jeex tàkk tàkk tàkk tàkk ay kilifa yi dina tax di woy seeni bopp sëriñ ñuy dee ci géej gi amuñu ci ñun soxla dama ne kenn wax ci loolu man li ma ñor du loolu ah li sëñ Moustapha wax intéressé wu ma sax booy bu ngeen ne lu ngeen ma taxe baax na waaye li nga xam ne moom laa bëgg man réew mu soppiku li nga xam ne moom laa bëgg yéen arabisant yi waxkat yi ngeen dugg ci laboratoire yi lii sëñ Moustapha ñeme ku si néew di jéem a jubbanti ak wax ci état bi ñemewu leen ko seeni sëriñ seeni sëriñ fii leen di toog ah. ñu naan ci yàlla lañ jóge ban gisee yàlla nu dégg ngeen ko ci dëkk bi te waxu leen dëgg dama ne ku nekk senegal gone ne la yàlla sant moom la sant sa morom ba tax ñun ñëpp ñoo war a ànd jaamu yàlla tey dëggal fii ku fi offensé yàlla tooñ nga chrétien yi ku fi offensé rek tooñ nga chrétien yi ba tax na seen cëriñ cëriñ tukki yi da ngeen koy dindi dindi kaale yi teg fële. dem jàngi ba am xam-xam ñëw gopp bi nga xam ne gopp gopp ñu ñu koy bayee boobaa léegi mën ne mille ans ngeen fexe ci defu machine nit ñi noppalu dama ne lii ngeen di def dëkke ko surtout sëriñ si nga xam ne defe nañ ne seen baay wala seen i maam moom aljana jël askan wi ñëpp dooni dof ñu duggalu ci gaal goo xam ne kenn xamul fu mu jëm loola laaj na assise nationale dafa laaj assise nationale islamique Sénégal jii dafa laaj ñun ñëpp ñun ñëpp sans exception ñu demaat tuub dir si ci lislaam buñ ko yàlla mer nañ de buñ ko defut waxuma la fii waaye buñ mbugal aljan dañ dañ koy romb ba tax na kenn bokku jóg dellu tuub te bañ cee am kersa encore mi leen fàttale lii sëñ Moustapha ko wax am na mbooloo xale la ci këru famille gu am doole la bokk ba ay kàddum jiwee ñi soxor sax ñi soxor daanu ko jéem a contourner may digal sëñ Moustapha ne ko heure bu jëlee micro bi di wax di wax noonam yëpp yëpp dañuy dëpp ci micro dañuy dëpp déglu ana lu ñuy xool see wax liñ ci mën a weddi ana lu ñuy xool see wax ñu ko mën a modifier ana lu ñuy xool ci say wax du nga juum ban circulé ko ci àdduna bépp moo tax sëñ Moustapha euh, continuer sa liggéey te lii njuumte gii nga juum dama ne ab xalif général wax na fi loo xam ne kenn du ko nettali te ba tey dégguma kenn commentaire ci dama ne kilifa yu mag yi def na fi jëfin yoo xam ne kenn yi mu ko tudd yoo sotti yàlla courage di wax jëm ci yu mel noonu waaye am na ñoo xam ne xola dama ne lañ la seeni kilifa def ak la mu wax sëñ Moustapha buñ la ko waxee nga jóg daw wax daw ngay def waaw man naqariwuma toppatoowuma loolu sax ndax fii laa toog ñuy saaga alxuraan faale di ñu waxuñu dara fii laa toog ah nit ñi tëkkali seen baay ak seen maam ak yonent bi ak yàlla ah gisuma kenn wax ci ay naa naafiq doo ngay wax réew mi nag réew mu jaxasoo la réew la mu toq sa bënn saañ ba réer ñëpp a xiif ñëpp a soxla ñëpp wuti waaw julli gi lu leen saf gisuma ko foofu nuy julli fii nuy jullee foofa waddal sa portable iPhone iPhone nga waddal ko fa boo del see ko gis waxi sëñ Moustapha ji jërul di siiwal ak a yuuxu ak a wax yéen ñi am xam-xay liñ bëgg ngeen dugg ci laboratoire yi waaw kuddu cumaar yi suñ jabar yi togge si ngi mën koo defar ah bu sondeel buñ taal ngeen mën koo defar ah wala léegi gu léegi gu toj ngeen mën koo ñëw waaye dara bu la yàlla jàppeek yàlla ak yonent bi nangam te bu ni saboté yonent bi ak di saaga alxuraan du ngeen génn waaye ku ci tëye ab sëriñam ab sëriñ mu mel ne ab dëmm waaw lii sëñ Moustapha wax nan wax jëmee ku ci ab sëriñ léegi senegal tàkk walla guerre civile am fi lu toll ni yàlla daawud ñu tudd ko ngeen dóor ne bëri ci lawu lawi ku ne faraj faraji te li seen sëriñ si wax yéena ma ko gën a dégg te dara du ci dëgg kon noo ngi jégalu bu baax a baax mënuñ cee bañ a wax noonu waa réveiller conscience maa ngi ziara sama mbokki nekk New York yëpp ak diaspora bi tout le monde man la Seydina Ousmane drame bu la réveiller conscience yal nañ buur yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi yal nañ yàlla tàggaleeg Macky Sall te bakkan suñ diine yi yàlla ko yàlla jubbanti ban ay jullit piir kon asalaamaaleykum wa rahmatullah